wasalaatu wasalaamu ala sayidina muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajmain wa baan assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu audu billahi min ashaytani rajim bismillahi rahmani rahim الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات لأن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا صدق الله العظيم ما شاء الله ما شاء الله يالنا يالا بارك الله الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين subhanaka allahumma la ilma lana illa ma allamtana innaka anta alalimu alhakim allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina حضرات السادة والسيدات الكرام والعلماء الأجلاء والأساتذة الفضلاء أيها الحضور الكرام أيها الحضور الكرام asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di jël suñu nuyoo di ko teg ci nuyoo yi nga xam ne romb na fi ki njëkk a jàllale nuyoo muy Moustapha Thiam macha allah matal na. sëriñ Hadj Touré tegu ci kon daanaka li ñu fi wax mënuñoo waxaat lu jéggi li ñu wax kon ñu ngi jël suñu nuyoo ak suñu kàddu yépp di ko teg ci seen kaw nuyoo xanaa li ñuy wax rek mooy di feddali bu baax suñu cofeel ci yéen fu ngeen ko takk rekk weesu na ko xëy na gëja gise gi dina am waaye teewul xol yi ñu ngi gisee Ibnul Qayyim dafa wax ne iza taqarabatil quluubu ida taqarabat il quluub laa yadurru tabaudul abdaan nee na xol yi bu ñu jógee soriwaayu jëmi bi amul lor te defe naa ne ñun suñuy xol jege yoon bu ñu gisantewul tamit ku ci ne yaa ngi xalaat sa moroom kon maa ngi leen di feddalil yéen ñëpp cofeel gi nga xam ne am ngeen ko ci ñun am ko ci jur yu baax yi ñu ngi leen di feddalil ñu tamit suñu cofeel ci yéen yàlla nañu yàlla boole sopp waxtu wi nag di lu gàtt ba daanaka at bu nekk dañuy am xerte di baax lu bari ci mawduu bi nga xam ne moom la ñu war a waxtaane waaye suñu ñëwee léeg-léeg waxtu wi duñu ko may waaye alhamdulillah ndax defe naa ne li fi sëñ Haadi jàllale léegi kese dontele gàtt na waaye am na solo ndax ku ci nekk rek mën nga cee am loo xam ne mën nga koy yóbbaale kon xëy na su ñu joxee micro cofeel gu ngeen am ci yéen la di ko séentu ci ñun bés bu nekk waaye waroon naa sax mën a ñàkk waaye nag du ñu def lu dul rek ñu fàttalante tuuti comme borom bi subhaanahu wa taala moom moo koy soxla pour mu mën a nekk ak soxnaam waaye soxna ci ci kër gi da koy mën a soxla pour mu mën a nekk ak borom këram waaye niki noonu sëriñ bi ak taalibeem doom ji ak wayjuram liggéeykat bi ak ñi muy liggéeyloo ba soo ko toppee du jeex ku ci nekk soxla nga ko muy tomb bu am solo yàlla nañu ko yàlla may yàlla nañ ko yàlla may ndax mooy lépp mooy loo xam ne boo ko xamee rek wala bu nekkee ci yow dara du jafe ci yow kon tomb boobu la ñu indi woon tey pour ko bëgg ko waxtaanee ak yéen xam naa nag niñ ko nar a jàllalee dinañu xaw a kii tuuti ndax waxtu bu fekkente ne dañ lay xaw a tënk ni ngay bëgg a jàllalee doo ko mën daanaka démb ci ngoon ñu ngi ciy waxtaan ñu ne xam naa jigéen ñi waxtu wi nga xam ne mooy ngoon gi day xat ci ñoom waaye suñu ko doon man bu ñu jullee tàkkusaan wala bu ñu añee rek ñu daje fii ñu def ñun suñu waxtaan bu ko defee bu tàkkusaan jotee ñu daal di dem tas dellu ci kër yi bu ñu añee bu ñu dellusee ñu mën a jox mbokk mi nga xam ne moom mooy def gàmm gi maa ngi koy jéggulu ndax bés bu nekk ci moom laay sës te léeg-léeg ma jël ci waxtoom te moom it woor na ma ni am na yéene pour jox mbokk yi loo xamante ne bi luy jariñ la waaye waxtu wi moo xat waaye lu mu tuuti tuuti rek luñ fi dégg yàlla nañu yàlla may dégg ak topp ñu ne sabur buñ ko dee jéem a xamle ci luxa dañuy wax ne mooy almanu wal xabsu mooy tere ak tëj mu ne buñ koy firi ci istilaax mu ne mooy xabsu nafsi an il jawaarix wa xabsu lisaani an il tashakki wa xabsu ljawaarixi an il loolu mooy lan mu ne li nga xam ne mooy muñ ci li nga xam ne boroom xam-xam yépp ànd nañ d'accord ci ne loolu mooy muñ nee na mooy nga jàpp sa bopp ba lu la mën ci dal natt bu la mën ci dal lu mu mën ci doon du tax nga tiit du tax nga jàq du tax nga dellu ginnaaw du tax nga def loo warul def nee na mooy tamit nga jàpp sa làmmiñ ba natt bu mën ci dal du tax nga jàmbat ko ba nit ñi la yërëmoon sax dootu ñu la yërëm waaye nee na tamit mooy ñàkk goo mën a ñàkk lu la mën a dal ci coono àddina du tax nga mooy yàlla ci benn côté nee nañ ñett yooyu boo ko boolee moom mooy li nga xamante ne bii mooy sabru nee nañ loolu mooy sabru ci istilaah ñu ne muñ ñi ko tudd ci alquran ci juróom-ñeent fukki place ndax am solo goo xamante ne bii muñ am na ko solo ñu ne muñ moom mooy gëm yàlla waaye nee na muñ mooy li ah ndax muñ mu ne al iman huwa sabru mu ne te doomu aadama mi nga xamante doomu aadama mi nga xamante ne bii moom moo war a muñ yàlla daf ko bind pour ëllëg yowmal qiyaam mu dugg biir àjjana waaye dugg biir àjjana googu dafa tegu ci benn njëg mooy lan da muñ ba def li la yàlla sant nga door a mën a dugg biir àjjana señaar yi mi ngi koy wax sànq ay mbokk yu ñëwoon naan yàlla dafay jël bakkanu doomu aadama moom lay jëndee nit ki pour mu mën a dugg biir àjjana <clears throat> inna allaha ashtara min al muminina léegi boo nee bu fekkente ne lan moo tax yàlla indi ñun ñu ci kaw suuf yàlla daf ñu indi ci kaw suuf pour ñu jaamu ko waaye bakkan bu nekk ba yàlla ne alestu bi rabbikum dañoo tontu woon ne balaa waaye balaa jooju est-ce que dañuy dem rek noonu yàlla xam na ñun dëggal nañ déedéet yàlla nee na tabaraka alladi bi yadihi almulk wa huwa ala kulli cheyin qadir alladi xalaqa almawta walxayaata liyabluwakum ayukum axsanu amala yàlla nee na dama leen bind yéen doomu aadama yi pour nattu leen pour xool leen ndax kan ci mooy dëggal li nga xamante ne bii mooy jaamu yàlla gi nga xamante ne bii teg naa ko ko wala balaa jamu tontu woon waaye lu tax yàlla di ñu natt yàlla nee na bu fekkente ne nee ngeen jëm yéen wala lépp loo xam ne yaa ngi koy def te ne yàlla moo tax yàlla nee na dama lay natt ba xam ndax xool loolu dëgg la ci yow wala du dëgg moo tax mu ne alif laam mim ahasiba annaasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum laa yuftanuun mu ne walaqad fatanna alladina min qablihim fala nalam fala yalam fala nalam fala yaalamanna alladina sadaqu wala yaalamanna alkaadibin yàlla nee na ndax da ngeen a defe ni yéen doomu aadama yi da ngeen di wax ne gëm naa rek ma bàyyi leen noonu tudduma leen natt déedéet nee na foog ma nattu leen ba pare ndax ñi leen jiitu woon am na ci ñu waxoon loolu ma nattu leen ñu dellu ginnaaw ndekete lañ gëmoon du woon dëgg yàlla nee na ba tey boo demee ci suratul xajj yàlla mi ngi wax naan wa min annaasi man yacbudu allaha ala xarfin fa in asaabahu xayrun itma anna xayrun itma anna bihi wa in asaabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi xasra dunya xasra dunya wal axira dalika huwa alxusraanu almubin yàlla nee na dafa am ci nit ñi ñoo xam ne dañuy jaamu yàlla ci déng-déng maanaam taraddud du ñu dugg ba mu mat bu ñu ci nekkee mu neex nag ñu continuer waaye bu naqaree rek ñu daal di dellu ginnaaw soo bokkee ci daayira gis sa bopp sa wërsëg yëpp ubbeeku nga continuer waaye boo ca duggee wala nga nekk imaam wala nga foo ci nekk rek ne yàlla nga fa nekkal gis ay jafe-jafe ñëw ay tolof tolof ñëw rek nga daal delluwaat ginnaaw yàlla nee na ñooñu am na ci nit ñi ñun yàlla nañ ci yàlla musal moo tax yàlla lii nga xamante ne bii mooy ay nattu mu koy teg doomu aadama di xool ba xam ndax ngëm yàlla yàllaam dëgg la wala du dëgg bu dul woon wat waxtu xat wi ba ñu dellu ca ña nga xamante ne bi ci jamono yonent bi la woon ñu mën cee tànn sallallahu alayhi wa sallam koo xam ne jigéen la joo xam ne nee nañ moom lañ njëkk a rey ci lislaam muy Sumayya bu ñu lay wax liñ ko def ci ay mbugal te taxul mu dellu ginnaaw nga xam ne gëm gëm yàlla ak gëm muñ muñ gu mat sëkk sëkk sëkk mooy tax sëkk gëm yàlla mën a dem ñu ne gëm yàlla walla muñ ñaata façon yi muñ moo am mu ne xas qasama ahlul ilmi ila thalathati aqsam qaalu minhu sabrun ala al bala wal musiba ñu ne boroom xam-xam yi dañoo wax ne muñ xaaj nañ ko ñetti xaaj ñu ne benn bu njëkk bi mooy nga muñ ci natt yi nga xam ne ak musiba yi nga xam ne yàlla dala koy teg ndax yàlla mi ngi wax ci alquran naan wala nabluwannakum wala nabluwannakum bi shay'in min al xawfi wal juuci wa naqsin min al amwali wal anfusi wa thamarat wa bashiru sabirin yàlla nee na na ngeen xam ne kenn ku nekk ci yéen dinaa ko natt ci loo xam ne da koy ragal lool lool xool ndax dina dellu wala day bàyyee boppam yàlla yàlla nee na na ngeen xam ne ku ci nekk ci yéen dinaa ko teg ak ñàkk ba mu xiif lool ma xool ba xam ndax xiif boobu dina ko tax a dugg ci lu neexu yàlla wala déet léeg-léeg nga dégg suñu mbokk jigéen ñi koo xam ne day nekk ci mbedd mi di jaay boppam boo waxee mu ne la samay way jur laay dimbali ndax dañoo amul lu ñu nekk waa ñun anañu ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi lañ lañ wax dañ ne lahu salaasuuna yawman lahu salaasuuna yawman maa kaana lahu salaasuuna yawman maa maa yazuuqu siwaa maa kaana ibtu bilaalin damma min taamin ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na daan na dem weer bu mat sëkk boo xamante ne bii du ñam ci gémmiñam wala du lekk loo xamante ne bii bilaal bu ko boqee ci boqtaaram du feeñ waaye moom sallallahu alayhi wa bokkul woon ak ñun ndax moom dañu ne ñaari lekk daawul daje ci biiram te bu daan lekk du lekk ba suur yow nga nga ne sa waa kër amuñu lu ñu lekk te wóor na ma ne tooguñu weer ca lekkuñu nga génn ci mbedd mi ne dangay ngay jaay sa bopp pour wut loo dundee kon kooku yàlla xiif bi mu ko nattoo tax na koo dugg ci mooy yàlla ndax ngëm yàlla moo dëgërul yàlla nee na dinaa leen natt ci mànkil seen alal xool ba xam ndax seen ngëm dëgg la wala du dëgg yàlla nee na dinaa leen natt ci rey seen wayjur rey seeni njaboot rey mbokk lu ne ma def ko ba xam xool ndax sa ngëm yàlla dëggu na wala dëggu am na ñoo xam ne yenn natt yu bu leen dalee rek ñu tooñ seen mbokk gaafal ko daat ne moom la te yàlla da ne maa asooba min illa bi iznillah wa man yumin billahi yahdi yàlla nee na lépp loo xamante ne bii musila musiba la boo xamante ne bii dal na ci kaw doomu aadama nee na ci sama ndigal la amee man yàlla waaye kenn mënul kenn dara kenn mënul jariñ kenn kenn mënul lor kenn waaye yàlla nee na ki nga xamante ne bii ak gëm yàlla mi ngi ci moom yàlla nee na man maay jubal xolam lépp loo xamante ne bii yàlla def na ko rek nee na da koy gërëm nee na natt bu ko dal lu mu metti metti metti metti du tax mu wax lu bon du tax mu jëf lu bon waaye du tax mu comportement comportement boo xamante ne bii bu baaxul la loolu ku gëm yàlla la ko yàlla di defal nee na wallahu bi kulli shay'in alim ne na yàlla nag xam na lépp lépp lépp loo xamante ne bii doomu aadama ba mu juddoo wala ba mu juddoogul wala bañ koy bind ba ba muy taxaw ci kanam boromam lépp lu mu def buur bi mu ngi koy gis kon ñun lan moo ñu war mooy bu neexee ñu wax alhamdulillah su naqaree ñu wax alhamdulillah su baree ñu wax alhamdulilah su néewee ñu wax alhamdulilah suñu deelee ñu wax alhamdulilah suñu dundlee ñu wax alhamdulilah alhamdulilah ala kulli xaal wala xawla wala quwata illa billah ñun mënuñu amuñu pexe yàlla rek la lépp yàlla ku gëm yàlla noonu lay def inna lillahi wa inna ilayhi rajiun lu ñëw rek gëmal ni ñun ci yàlla la ñu jógee te ci yàlla la ñuy dellu ëllëg nga gëm ne lépp borom bi la dafa am benn yonent boo xam ne du ma ni moo gën a muñ ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lépp loo xamante ne bii wax nga ko ci yonent muy natt buñ ko natt ak ay musiba yuñ ko teg yonent bi féete na ko kaw sallallahu alayhi wa yonent bi avant muy juddu la yaayam gaañ yonent bi bi ma amee juróom benni at la yaayam gaañu bi ma amee juróom ñetti at la maamam gaañu yàlla natt ko ci alal da daan xiif ba day jël ay xeer di ko teg ci biir bi di ko takk ndax xiif kan moo fi egg ci ñun foofu kon lan moo fi jar ngay jaay sa ngor lan moo fi jar ngay jaay sa diine ci àddina bii nga xam ne yàggul yàlla natt ko ci njabootam nit li mu gën a bëgg mooy doom ju góor benn doomam bu góor majoru ba ci Ibrahim mi ngeen xam ne mi ngi gaañu ci bësu tabaski nga xam tabaski ku nekk ni nga koy waajale suba tabaski nga xëy solu war a solal sa njaboot ànd ak ñoom yàlla jël bakkanu doomam ci la jooyee mu ne sama bët yi dina sotti ronkooñ xol bi dina am tiis waaye du ma wax lu dul neex yàlla noonu la ko gëm di mel kuy muñ noon lay mel sallallahu alayhi moo tax moom mooy suñu roykaay mu ne ñaareel bi nga xamante ne bii mooy muñ nee na mooy lan ak sabru ala taatillah mooy nga muñ yàlla ci topp ndigal yi nga xamante ne bii yàlla digal na la ko amsila bi mu joxe fii nee na xanaa xoolal lan moo gën a neex nga tëdd ba fajar mu sedd lool nga gëmmentu sonnoon lool yàlla mënoon naa def julli mu nekk tàkku tàkkusaan timis kon dina bari ñoo xam ne dinañ ko matal li gën a jafe mooy julli gee ak julli fajar julli jot nga yeewu mu jaral la nga régler sa portable nga yeewu nga yëg ne yàlla moo la wax jógal nga julli nga dagg nelaw yi sànni mbàjj mi fële dem laal ndox mu sedd guy bu dee góor nga nga waaxu dem ca jàkka ja moo xam sori na moo xam soriwul moo xam lëndëm na moo xam lëndëmul ndax dañ ne nit bu dee mi ngi dégg nodd rek te jàkka ja la war a dem julli jee muy góor mais jigéen moom li ñu sopp li ñu gën a bëgg mooy mu jullee ci këram nga jóg dem def loolu loolu ku amul ak ngëm yàlla gu mat doo ko def waaye niki noonu joxe azaka yàlla moo la ko digal nit ñi lañ leen bëgg mooy dajale alal comme ni ko yàlla waxee alhaakumu takaasur xatta zurtumul maqaabir kalla sawfa taalamuun summa kalla sawfa taalamuun ngay jël alal di dajale dama ne nit ñi dañoo amul xel ndax nan ngay mën a sonnee ci alal liggéey ko ba pare di ko dencal koo xamante ne bii dalaa war a doon ëllëg sa ruux bu xasee denc sa alal moomatoo ci dara yàlla séddale na ko ba pare léegi yow yaa sonn te néegoo cee sol néegoo cee lekk négocier dimbali nit ñi ñu bindal la ci tuyaaba ëllëg nga fekk ko fële mais li la gënal mooy seytaane di la rafetalal neexaayu alal ngay dajale di denc di dajale di denc yàlla wax na ko alhaakumu takaasur hatta zurtumul maqaabir am na ñoo xam ne dañuy nekk di dajale alal di dajale di dajale ba mbàmmeel dikkal leen ak dee yu gaaw yi nga xam ne ku nekk mi ngi koy gis tegootul ci wér tegootul ci dara kon loolu muñ mooy tax nga mën a def topp yàlla boobu bi ci des mooy aj màkk ak coono ya ca ne alal ji nga war a génne mu bari lool loolu boo amul ak gëm yàlla gu mat muñ gunge ko doo ko def birul waalidayn muy lu nit ñi sàggan àjjuma bii paase ci laa doon waxtaan ak xale yi te nit yàqu na fekk na loolu moo la yàq ndax yàlla dafa fonk ñaari wayjur soo demee ci alquran mi ngi naan wa qada rabbuka an laa taabudu illaa iyaahu wa bil walidayni ihsaanan mu wax li gën a jafe imma yablughanna indaka alkibara ahaduhuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan waxfid lahuma janaha zulli min arrahma wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira sa ñaari wayjur ñoo la ëmb jóge ci ëmb bi benn bés ñëw yàlla mënoon da def lu nekk far yàlla def li gën yéen ñaar ñëpp ngeen dund bés bi nga juddoo loo sonn lu mu sonn sonn dina jël weenam si xal la nga nàmp bu guddee lu mu sonn sonn boo jooyee dina la jël téye la nax la mu continuer yaw ci noonu continuer ak ci noonu ba nga man keroog wax naa ko xale yi man leen am na ci ñoo xam ne dangay am xam-xam xeeb sa wayjur te sa wayjur bu la bàyyi woon ci mbedd mi yóbbuwu la nga jàngi wala mu dem def loola leneen fooy xamee léegi moom mu def coonaam yépp lu mu am dem yóbbu fay la lu mu yóbbu lu mu am yóbbu fay la lu mu am lijjanti pour nga xam nga xam ëllëg yàlla may la teraanga àddina nga xeeb sa wayjur moo xam xeeb ci melokaan la moo xam xeeb ci xam-xam la ku ko def di nga torox bu dee moom moo la jàngaloo ji bu dee jàngalowuloo ji yëpp ndax yàlla ba mu waxee moom nañ ko jaamu te buñ ci teg kenn daf ci teg ne nañu rafetal jëmale ci suñuy ñaar wayjur waaye mu wax diggante boo xam ne fa la gën a jafee mooy suñu màggatee dañuy naqari deret léeg-léeg ñu jël waxtu woo xamante ne bi dañuy wax di wax di wax di wax te amoo droit dagg seen wax da leen a war a déglu ba ñu pare amoo droit toog ci kaw sa wayjur toog ci suuf ak nu mu mënti mal mënoo ñàkkal sa way jur fayda kon loolu muñ coono yi ngi ciy dajeel mooy mën a tax nga am birul waalidayni waaye nee nañ ma arrêté ko mu ne muñ ci mooy yàlla as sabru anil maasiya mu ne an yakuna al maru rubama jaalisan ala shabakati internet boobu la jël ndax xëy na léegi moo gën a siiw waaye bari na ci ne na nga toog di seetaan loo xam ne sa bët waru koo xool ndax dañ ne ëllëg yowmal qiyaam cër yi dañuy seede yowma tashhadu alayhi arjuluhum ah na leen da gis koo xam ne yàlla danaa ko yaa def lii yaa def lii yaa def lii muy weddi defuma ah lii moom est-ce que lii di xool est-ce que di werante yàlla waxloo tànk yeeg loxo yeeg bët yeeg lu ñuy wax li ma shahidtum naa qaalu antaqana allahu alladi antaqa kulla shay'in yàlla mi nga xam noo mooy waxloo lu ne moom moo ñu waxloo ñun tànk moo ñu waxloo ñun loxo moo ñu waxloo sa cër bépp boo xam ne mosoon nga cee def lu neexul yàlla doo mën a weddi ndax dama ni gémmiñ waxul de bu neexoon yàlla bët mooy wax ndax bët ni mu mel rek noonu la gémmiñ mel cër la rek cër la rek mais liy wax xamoo lu mu doon kon antaqana allahu alladi antaqa yàlla mi wax loo lépp moom moo ñu wax loo tey lu jar la nga muñ téye sa bakkan ba dara du la jaral nga jël ko jigéen bànneex sa digganteeg jigéen njaaloo ak ni mu baree léegi nga muñ téye sa bakkan am ngëm yàlla gu mat ba doo ko def comme ni nga xam ne noonu la yent yàlla yuusufa defoon jigéen a ko wowoon joo xam ne ju am la woon ci mooy yàlla mu ne ko lan qaala maazallah innahu rabbi ahsana maswaaya innahu laa yuflixu zaalimun mu lànk waaye lu mu wax qaala rabbi sijnu ahabu ilaya mimma tad'uunani ñu tëj ko ca kaso waaye moo ko gënal mu mooy yàlla benn yonent boo xam ne yàlla def ko tegoon nag mu yont yàlla Ayyuba ndax dañ ne muñ moog yont yàlla Ayyuba xar yi naa ni boo waxee bii rek boo waxee muñ rek foog nga tudd yont yàlla Ayyuba yont ay yont yàlla Ayyuba moo doon kan mooy koo xam ne ci ni ma la ko mën a waxee ci wax ju gàtt milliardaire la woon milliardaire la woon yàlla mu ne ko gan may ko ay doom yu góor ak yu jigéen ñi nee nañ amoon na juróom-ñaari doom yu góor ak juróom-ñaari doom yu jigéen këram neex lool macha allah nee nañ li mu yoroon ci ay ñu koy liggéeyee ci mbindaane ki booy ni ma ko waxee kenn mënul wax jabar ji daawul def dara doom yi daawul def dara milliardaire su ma la ko waxee fii ci ne rek jaratu sax ñuy leeral nee ñu jékki-jékki rek yàlla natt ko nee na mu jekki-jekki rek yàlla natt ko feebar boo xam ne feebaru der la yaram yaram bi def ay góom nee nañ dafa demoon bay xeeñ ku nekk xam na ne soo wérul liggéeyatoo xaalis boo yor day jeex nee mu dem ba alal ji mu yoroon jeex te ku nekk xam na ne boo fayul nit ci këram sa kër liggéey ba nga koy liggéeyloo day dem yoonu seet feneen ñépp dem waaye nee na ci lalu feebar bi mu tëdd dem ba mënul jóg nee nañ fu ñu toll rek naan ko sa doom diw dee na sa doom diw dee na sa doom diw dee na ba fukki doomam ak ñeent yépp gaañ ci biir feebar bi nee nañ mu dem ba yaram bi da doon xeeñ ñépp daw ko ba mu des benn soxnaam yonent yàlla ayuba laa wax de nga xam ne moom yonent moo ko jur te moo moom it jur na yonent boole am am ak nubuwa nee nañ mu ne ci loolu ne ci loolu ne ci loolu mu dem dem ba jabar ji ñëpp dem mbokkam yëg ñëpp comme ni nga ko xamee nit ñi boo amee ñu topp la boo ñàkkee ñu bàyyil moo tax loo mënti am àndal ak yàlla mi nga xam ne dara du am ba mu bàyyi nee nañ doom yi fukki doom yi ñeent yëpp gaañu ñëpp dem bàyyi nee nañ jabar ji mu gi moom moom mi doon liggéeyal mooy wër ci kër yi di mbindaanu pour mën a am lu mu jox borom këram ñun jigéen ñi am nañ foofu wàll bu rëy ci dimbali sa borom kër ak muñal ko ci lu mu ci doon ndax yàlla fay la nee nañ muy dem ba far dëkk bi bu ëpp bu jubee ci kër ñu daw ko kooku tëj buntam wala buy wax ak moom doo ko faale ndax nee nañ dañuy bañ jàngoro ji nga xam ne moo ni ci yonte yàlla yem ci yàlla ayuba ba ba rey ay njabootam ñëpp dañuy bañ mu wàll leen kenn nangootu koo jël nee nañ mu dem ba am na jamono boobu mi ngi ci am amam nee nañ dafa am benn dëkkandoo xam ne dëkkandoo boo xam ne da daan gis karawam ñoom jamono yooyu dañ doon jaay seen karaw nee na karaw gi rafet loolu da ko daan wax jaay ma sa karaw gi waaye nee nañ du ko tontu bi mu demee nag ba sonn ba amatul fu mu jëm amatul lenn lu mu wut pour jox ko yéen si yàlla ayu ba mu lekk mu wax ko ko nee nañ mu jéeg mu dem dagg karaw gi jaay ko mu dem jënd ci lu yont yàlla ayu ba lekk ñëw jox ko yan ci yàlla ayuba ni ko foo jëlee lii ndax neewoon nga ma kenn ci dëkk bi nangootul nga dugg këram kon foo jëlee lii an naa laki haada kenn waxatu ko léegi borom kër yi kenn waxatu ko léegi dangay toog sa doom dem liggéeyul de ci diggante bu gàtt indil la xaalis nga lekk est-ce que xam nga looy lekk te bu ëllëgee yow ma yàlla dina ko régler nañ ci bàyyi xel njaboot yi sañ lijjanti fu nga ko jëlee ndax mas'uul nga ci loolu ëllëg ma qiyaama bés bi nga xam ne mas'uuluun nañ ko bàyyi xel nga ne mu ne ko du ma lekk te waxoo ma lii foo ko jëlee mu ne ko yow dangaa feebar yaa ngi bëgg a dee amoo loo dinaa la wax fan laa ko jëlee mu ne ko wallahi duma ko lekk te waxuma fan laa ko jële nee mu jënd bopp bi wan ko di ko dafa dagg keroog gi jaay ko foofu nag fekk na njëkkoon na ko wax ni ko yooyu yonent nga boo ñaanee yàlla dina nangu sa ñaan mu ne ko ñaata at laa dund te feebaruma mu ne ko juróom-ñaar fukki at mu ne ko kon war na maa mën a xaar juróom-ñaari fukki at yoo xam ne dama koy feebar rus na tàllal loxo boromam di ko ñaan kooku moom muñ mu ne rab bi rabbi inni masaniya duru rus na sax ñaan yàlla ni ko faj ma sama feebar waaye dina ko lor am na lu ma dal lor ne leen jabar ji génn benn bés nee lu mu daan def moo koy defal ne na mu soxla ko gis ko ci kër gi mu jaaxle foofu la ko yàlla feeloo nee na yàlla ni ko urkud bi rijlika haada mugtasalun baaridun wa sharaab yàlla ni ko tegal sa tànk ci suuf dina am ndox bu génn nga jël ko naan sa sangu ci nee na noonu la def feebar mu nekkoon ci biir yaramam dañ bi nekkoon ci kawar yaramam yépp sa wecc yàlla delloowaat ko comme ni mu meloon nee nañ soxna si ñëw dugg si fekk ko mu taxaw gis na ko ak jëmmam mu nekkaat waxambaane am kattan nee na mu ne ko ndax gisoo góor gi te doon fii mu ne ko man la mu ne ko yow danga may saboote dimbali ma bu fekkente ne dafa am lu ko fi fekk lekk ko wala anam nga dimbali ba wax ma ko mu ne ko man la mu ne ko ah xaw nga maa nuru moom de bi mu toll si jamonoom mu ne ko man la yàlla delloo ko moom ni mu meloon delloowaat jant yàlla ayuba ni mu meloon nee nañ mayaat ko ci ay doom lu toll na li mu amoon kon yàlla balaa sa gëm di mat yàlla dalay natt bàyyi leen xel bu ñàkk amee rek ngeen dellu ginnaaw nañu jàpp ci ngëm yàlla te xam ne àddina bi jeex na ba pare àddina bi jeex na ba pare lépp loo xamante ne bii yonent bi joxe woon na ko boo duggee ci internet bi dangay ngay tiit lépp ñëw na daanaka ñun nag ñu ne ci àddina nekk ci àddina ne ci àddina lillaahi wali rasuli maa ngi leen di ñaan lépp loo xamante ne bii diine moo ko santaane ak lu mu metti metti metti nañ ko def ndax àddina day jeex te sooy dem doo yóbbaale dara na suñu maam Haadi Ture ma ngi wax naan allahu akbaru inna al umra aariyatun allahu akbaru inna al umra aariyatun wa kullu aariyatin la budda mardudu fa baynama al maru fi l amali mushtaghil id huwa min jumlati al amwaat ududu halla dayfun bi baytin la anis balaa anis aw fii duudu nee na da ngeen bàyyi xel ne àdduna bi kenn dëkk fi dañ fee ñëw rekk mel ne gan dañu delluwaat suñu borom nee na ëllëg yowmal qiyaam nit ki nga xamante ne bi mi ngi fii def itteem yépp ci xalaat àdduna nangam nangam nangam te du jeex mukk nee na na nga bàyyi xel ni fi nga jëm dëkk la boo xamante ne bii loo yóbbuwul foofu pour ganalee ko sa bopp doo ko fa am loolu mooy yawma laa yanfau maalun wala banuun illa man ata allaha bi qalbin salim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu sang bi sa bamboy at di ma neena yaa Mustafa yaa Mujtaba yaa Muntaxa إني بجائك لا إذ المستلمز أنا كفكنا بك سيدنا محمد samam neena kii ngeen tantal moo di sayyiduna muhammadu anta allazi raajika yalfaru bil munaa يروي ويصبغ أرجو يتوكس مصطفى واجه أنت الذي تسخي الوجود بشيبي إذ بئر خيرك في السدى إن تكنز من لا يحبك هو العياذ بربنا فالصالحات جميعا تتفوز سممنا أنت الذي من لا يحبك قلبه بلن النيون نمروز بل إبليس بل هو أكرس سمام سترنونا إن كان ذلك فالحبيب لعلما رب الورى عذبه يتجوز لنا صلاة الفاتحة كان ورد الملك أجمك القلوب صمرت بالكوجة صلاة الفاتحة أنا صبي سنهادي أمك مال تبل نالا صلاة الفاتحة كان ورد الملنيكي مقل قلوب سمر تبل كوتا nga def nuy xasida ci ay yaaram ci tiig defal ñu way wi ci wolof ñun nga ayus àddina yaaram yi ñoo di galam woo ñooy balam is galam yow ak baram ngir axi àddina alhamdulillahi way wi adi way dafa déggal gaay su may baawal diis àddina joxel te bul ndamu yow bul xeeba te bul ay bal ku sellalul yow day naga sellal ci àddina bul tooxi bul yokki kuy wut yàlla soob sab am ko wóorul te dooroy seyxoon amal jotaay yu sikar bañ a nelaw ba fajar neex i nelaw kat du ko jar si yoonu góor ga ne wasifa fonku werde wax janay nga teewlu maana ya teewlu gorgane bu bat yarube bo ay sattay tedi jare dare be janade nasade la wax mam cheikhotin adine molem walle yoyi nawna len ca yalla waaye gannaaw ba jaayante naa nga ak Seexoon góor ga ne bëgg la gëmal màggalal soppal weegal teralal teralal wala wala yooyu li yàlla ko àddina bul xas wala yooyu bu kay ëpp naa def waayu yàlla la lee ma kar góor ga ne bul xas wala jàpp naa def waayu yàlla la leemoon kon ne leen fonkal si say ñaari waajur ni gërëm tey may su seeni mer yaakaaral àddina bu leen di masa bu leen gëddit nay nooy tey toroxloo na bara dil dila bay sam xol de gañ ga moo ngay ña sëñ aadina soo de teral ña la jur saaboo tëne di nga gis sa dama jooba dila a sabgal xiikon aadena am ful moo di la war na la ñu yore kër agogo ndogal waa yebulu ma xaatem aadena waddal jabar te saaxal jël fay sabar ba mu mat nga def hadiya ci yoon sëñ aadena waddal jabar te saaxal jël fay sabar ba mu mat nga ga dafa addiya ci yoonu Seexul góor ga ne bul fàqu yat sa jabar muy dox di togo ak xewar yaa deful la la góor ga ne jabar su dee bëre boo bëggee moo daa waxalate jëf si waxul raam benn gën nan gën moo ko wax muuñal ko muuñal ko fennal yeyite jox ko moom ak waxoolam ak sa xol déggoo si kon nee leen yaa Cheikhana ak ja jóg la ñu màggal Cheikh leer ga jolli na fa kon jóg leen taxaw yaa Cheikhana ak ma jóg leen ñu màggal Cheikh leer ga jol leen ko waa Malicounda yaa Cheikhana Ahmada Tijaan wooy leer ga jol leen ko xalmam kon nee leen yaa Cheikhana Ahmada Tijaan ñëw leen ñu màggal Cheikh gaajal leen a fooxal Cheikh Tidiane yónnee na baatalal na baaraamu mu tijjam ak bëj sa si di wax si sa goro ak goro wam loom Cheikh Tidiane sa ruugi mooy tëbb yi wërsëg yu yi yee xam-xam yu sell yi eskey Cheikh Tidiane sa werde wee bàyyi woo ka ba dee doo gis see ka xam moo lay ragloo kan kon naa la ne yay guy gu rëy gi yay cere laa la di farrango ñu koy mbaadu yow say xooti gorgane ya say xana ahmad tijan waa Serigne Mor di nit koo xam ni ku am kóllëre la wax dëgg yàlla ndax gàmmu gi ba nu ko dooree ba tey ci lum ko mënti fekk dana bàyyi lépp ñëw même bu dee ñaari minute mu barkeelu ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dellu xam nga ni loolu itam lu rëy la ci sëriñ bi lu rëy la tam ci waa Malicounda yii nga xam ne at mu ne nga fekk leen bismillah الحسين سيادنا دمن جخاي بجربا بغرب اي نسات نلي جولي بفجر سلن خير نان وخت بور دل سجولك ñoo fajaay ami jural nanu doom ne du mel ni moom ba mukk safe abad sëri looli ya aduna doo la baw doyam dama ni Moustapha Aminata di sa yaay Abdou Moutalib mooy sama am nëpp yaa rañaane ba mag dem ca bu giseeg moom wax ak moom del si wat julleeg ñoom fajar fu mu jaar ca mu jaar jugal taxaw guddina kura bi jaral jugal taxaw guddi na kura bi jaral jugal taxaw guddi na yabba am jural nanu doom siri la alina adna da la bawdon ki adna na ay wa dama ne jaxaay ba juruba ba kër sey ay wa xamudu nay dama ne tandar ma aljana ay am na day tool tandar ma aljana suma salaatu maa salaami tabaaraya amada duxuri ala shafiici l-anaami wal aali wal asxaabi jamiicihim maa laaxa barxun aw buduuru salaami sumarda an cheyqina tijaani qudwatina cheyqi lmashaaiqi yaa tuuba lana zafaru wa abdihi najli usmaana alladi intasharat bihi tariqatuhu yaa xabaza alwazaru assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu am da ngeen a sonn dafa mel ni ngeen di nelaw de wala wala doos bee jeex rek salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. daa mel ni rajo bi daf fay nuyoo defe naa waxoon naa ko daaw neewoon naa nuyoo du farata de nuyoo farata waxoon naa ko waaye fay nuyoo moom farata la ñu ngi nuyu ñëpp ñu ngi ziyaare ñëpp ñu ngi ndokkeel ñëpp di balu xaq ñëpp di baal xaq ñëpp di ñaan borom bi tabaraka wa taala yàlla nu boole jéggal di jiital imaam ci nuyoo bi siñaadi Sénégal yélimaane fi gën a metti Sénégal imaam fi gën a metti ndax nit ñi yéenewuñ ko dara lenn daal lañ ko yéene mooy sondeel ak guro ak puso ak këyitu tabax ak perkaal moom mbaxana moom rëy na ma ni nekk fi limaan booy seet nekk fi sax noddukat bilaal walla ngay bale jàkka ji sax a tane moo tax dañu ni waaja ba ñëwee ci jàkka ja sëñ Moustapha di dimbali waa jàkka ja daf ni ana kii bale jàkka ji muy mi ngi nii mu bind segu dix millions yi ko am yow kuy toppatoo jàkk war nga yor loo xam ni sa xel du nekk ci dépense ba doo tal jàkk ji waa ji jël segam denc mu ne ana Bilal Bilal ni maa ngi nii mu bind million ni ko yow comme yaay noddu ci jàkka ji waxtu wu ne nga jóg yow war nga yor loo xam ni sa xel dana dal ba nga mën a jóg cinq heures du matin ñëw noddal waa jàkka ji ilaal téye mu ni waa ana ilimaan nag ndeysaan imam defaraat mbaxana mi bu baax defaraat dara ji xëcc kaala gi daal di ni ko maa ngi nii xam nga Sénégal boo bëggee nekk sëriñ bul wax bu baax sëñ mi nga baal ma de yàlla wax ndànk bul wax bu baax del wax ndànk te booy nuyoo bul tàllal sa loxo bu baax defal nii rek <laughs> ilimaan ni maa ngi nii waa ji ni ko yow ilimaan kenn mënulaa laa yàlla rek la mën a fay yow dama lay bàyyeeg yàlla ilimaan di ko xool ba yàgg mu ko bu ma bàyyeeg yàlla de ah ah kim ko bàyyeel dafa ra tax nag doyloo yàlla yombul de waaye waa ji itam de doy na waar ku ni ilimaan nga woo ko ba mu ñëw nga ne ko bàyyi naa la yàlla ok kon ñu ngi nuyu imam bu baax di nuyu borom dëkk bi di nuyu suñu xarit suñu sëriñ suñu soppee sëriñ Hadi Touré di ko ziyaara di ko ndokkeel ci bés bi bés bi bésam la cër bu ci waay am rekk na ko ko sante ndax moo ko moom te wolof nee na bu lëg lekkee alom na ko gërëmee coy te wax naa fii daaw nii maye lu nekk yomb na bam bam des maye daraja maye lu nekk maye mbubb yomb na maye oto yomb na maye kër yomb na waaye li te ticc mooy ñu jox la lépp nga comp ci sa daraja maye looloo jafe waaye nag damay wax toujours nii nit lu muy maye day fekk mu la ko xamuloo ni ku nay amul ku nay amul ku nay amul ku amul a fi nekk bari na lu ñuy jiiñ nit te yoru ko dañ ko ko yaakaare mais amu ko waaye nit lu mu bëri la foog mu tuuru nit lu mu bëri foog mu tuuru alaaji mi dafa bari le li muy joxe am na ko te damay wax ni koo xam ni loo diis diis ñu jéem laa yenu boo woyefee ci kaw ngay dëkk te yéen waa Malicounda mbir yomb la bu mu tax nga yaakaar ni ñépp la yomb sëriñ Moustapha ma mbir yomb la ba saa ko soxlaa mu tegu ci sa loxo bu mu tax nga yàpp ni ñépp la yomb am na koo xam ni tànt bii bu fi toogoon bu ko neexee bu sonee président Macky sàll jot ko waaye du ñépp de sëñ Haadi jotaayam bii bu ñu yaakaar mukk ni fuñ ko soxlaa mu teew fa tabaarakallaahu kon nag Touré ñu ngi lay ndokkeel bu baax ci bés bi Moustapha wax na ko léegi waa Malicounda wëllëre rekk a ñu booleek ñoom bàcc caam magu kii la doomu alxaaji Malick Thiam di taalibe Serigne Hadi Touré ture ma booleek Serigne bi gàmmu gi benn at laa ci ñëwul muy at mu njëkk mi waaye yi ci topp yépp teewe naa ko yàlla nañ ko teewe ba ma téeméeri at te ko ñun ñépp ci darke yeneen ci bi waaye loolu mooy wëllëre te wax naa ni Seydi Aboubacar Sy ibnu Cheikh Alhaaji Malick Sy borom bone kaare bu jekk ba daana wax ni góor du fecci wóllëre mukk góor du xam fakk góor du jàpp bàyyi góor du soppeeku góor du tiit ba fen góor du ñàkk ba saalit ma ne est-ce que góor du fecci wóllëre wóllëre la mag ñi xamoon góor du jàpp bàyyi ana sa waaja nga ni gëj naa koo gis du wàllu gor wala bàyyi naa ko bu yàgg loolu jikko politicien la ngeen baal ma waaye du jikko gor gor koo téye na la dee bo tàqaleeg moom waaye koo àndal démb bu subaa nga ànd ak keneen koo tagg tey bu subaa nga xas ko loolu du wàllu gor gor du soppeeku am na ñoo xam ni bu ñu amee liggéey rek su ñuy yow dootuñu wax ak yow wax ju normal mhm. am na ñoo xam ni ñu amee liggéey dootuñu wax ak yow wax ju normal waaye góor du tiit ba fen lu coow li bari bëri waxal dëgg góor du ñàkk ba saalit soxna si wax na ko léegi ñàkk bu la tax a saalit góor la wax de tuddagul jullit de góor la wax moo tax Serigne Cheikh nee na am na ñaari quartier ngi ci Ndakaaru dem ca benn ba yomb na waaye dem ca ba ca des yombul ñu ne ko ban ban mu ni benn bi mooy ngor benn bi mooy gore mu ni dem ngor yomb na waaye li jafe mooy dem gore Serigne Cheikh nee ñaari gor man nañ laa jur waaye gore moom jikkoy boppam la am na ñoo xam ni fu leen alal fekk fa la leen di bàyyi milliard ak lañu yamale cheikh alhaaji mansour bu cheikh alhaaji malik radiallahu anhu dafa nekk ca Tiwaawoon ceerno Seydou Ndaw ceerno Ibrahima Seydou Ndaw bi nga xamoon jazakallahu xeyran maa ngi ñëw ci yéen de pourtant ubbi rek ah sëriñ Moustapha Ceerno Ibrahima Seydou Ndaw dafay ñëw seet si seexal Alxaaji Mansuur mu nekk ci daara ji ndeysaan mu ñëw ñu dalal ko taalibe yi ñëw ni ko am nga gan gu lay seet mu ni nee leen ko na ma xaar continuer waa daara ji raful yàkkamtiwul xam nga nitu yàlla milliard ak dërëm la yamale nitu yàlla xamul ndomba tànk yàlla rek la xam Cheikh Alhaji Mansour continuer di waxtaan ba waa daara ji jonkan di ko wan ni jógal nga recevoir gan gi Cheikh Alhaji Mansour ni yegg leen suuf yegg leen suuf gaa yegg suuf mu ni nit day am fulla neg leen ba ma pare ci yéen Ibrahima nee leen ko bu ma soxlaat te yàkkamtiwul na ma xaar bu ma yàkkamtee nag mënumaa gis tey na dellu ba ëllëg yombul de dama xaar ba dama xaar ba ma pare moo tax Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz borom mbéjaaw bu jekk ba góor gi fi def 40 ans. yu teg six yu teg quinze jours zéro faute Cheikh Alhaji Abdou nee Alhaji Mansour moo ma ñu ne ko fu la la jaarale mu ni dañu ma wasawi ahlal ghina wal fakhra ata yazummu wa man yu kaana yuturika Alhaji Abdou yamaleel borom milliard ak borom dërëm yamale kilay lay tagg ak ki lay jafe yamale ki nga xam ni ala jaadi fu mu dajeeg yow jox la cent ak taalibe bi yor pas-pas saa yu dajeeg yow jox la ñaari loxo sumu sa kanam ñi leen mën a yamale yombul de am na ñoo xam ne sama benn baay ngeen baal ma sama benn maam bu baax bu baax lool dama am sama benn mbokk alaaj Moustapha boo xam ne saa yu xëyee rek ñëw nuyu ko papa jox ko ñaari loxo dem benn bis mu ñëw di ko nuyu rek mu ne ko yee eh, sa nuyoo bari na de mu ne ko maam mu ne ko déggal li ma la wax rek li ngay xëy di nuyoo bari na fas kanam nee na may def saa yu ma ñëwatee bala ma ko nuyu wut ñaar téeméer ñu ne ko papa nee na mujj na mu dajale xale yëpp teg ma loxo gis ngeen xale bi xale bu yaroo ngi kër gi moo fi am gën a ëpp yitte amul de tabaarakallaahu kon sëriñ bi ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar di nuyu ñi nga àndal ñëpp alaaj Moustapha Ndiaye bu baax mii ak ñi nga àndal di nuyu yaa sayda jigéen ñi saa yu ngeen daje góor ñi yanu ba ci kaw rek dóor ci suuf abeeg na ci lu ñëw na di ko seet mhm. waxtu la ko wax yàlla rek lañ gis yàlla rek la gis yàlla rek la xam waaw kay yaa Seydi ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziyaar sa maam sëriñ Babacar daana wax ni man su ma doon bokk daayira daayira jigéen ñi laay bokk ñu ni ko lu tax mu ni ñoom duñ xëccoog yow imaam duñ la laaj ijaaza jigéen ñi fi ne lu coow li bari bari bari bu julli jotee ñu dem ci ginnaaw te duñ laaj kenn ijaasa Oustaz Sané waaye yëgal ni nag ñoo waroon di tànn ilimaan nag kon léegi coow li jeex gis nga xëccoo bii ci jàkka yi buñ doon def saa yi ñuy tànn imaam woo jigéen ñi rek lee mu jeex xanaa xam la ni Fuuta noonu lan lee seen problème u imaam benn dëkk dañu xëy rek woo jigéen ñëpp ñu ñëw ñu ne dañoo bëgg a tànn imaamu dëkk bi fekk jumaa ji rafet na kenn ku nekk xar fa fuufa boo xam dugg nga ca pour bëgg a nekk yilimaan ñu woo jigéen ñuy ñëw ñu ne lañ leen tànn yilimaan ñu ne maxtaar yéegal maxtaar ni càkk càkk yéeg ndey su kay ni ko e eh, kook du maxtaar mu ne waaw mu ne ko jippo lu ja teg baat xanaa xam loolu jigéen ñi ñi ngi caractère boo xam ne suñ la ko xoolee luñ la wax nga def ko jippo maxtaar ni cëp cëp cëp ni cipp wàcc daa dem toog fee tegu ca baat di jazakallah xeer boole wu ca wax ñu ne Moustapha Thiam yéegal Moustapha defaraat dara xëcc mbaxana mi taxaw ndey Thiam ni ko eh, tafa taf mu ne waaw mu ne ko jippo mu saf daal di cëpp cëpp daal di cëpp wàcc ñu ni Moustapha Sarr aywa yéegal yow itam Moustapha Sarr rek nogay génn xool ko ne kooku Moustapha mu ne waaw mu ne waaw foofu du sa place wàccal mu daal wàcc ba waxambaane yëpp jeex ngeen baal ma ñu ni oustaz Sané aywa yéegal Sané oustaz xaddamiku daldi di yéeg benn xale bu sob bu dëkk ci dëkk bi daldi ne a ah, kenn waxul dara de daal dellu ca kër ga fekk fa maamam bu jigéen bu màggat mu ñëw nuyu ko ni ko maam Oustaz Sané da lañ bëgg fal imam ma nga ca kaw kii ba mu ne ah ñu ne waa mu ne xaar ba ma ñëw jox ma yet bi ma sukkootu dem dem jàkka ji ñu jox ko mu sukkootu sukkootu ba yegg si ci jàkka ji fekk Oustaz ne ci kaw mu ne ko eh kooku saane mu ne waaw mu ne ko ah wàccal foofu dëkk bi amatul ilimaan nag moo tax yéen yéen a waroon di tànn ilimaan ndax ki ngeen ni yow rek mooma ku ngeen ni yawa rek mooma ku ngeen ni yawa rek mooma de moo tax yonti yàlla Muusa yonti yàlla Muusa bi mu teeree ci kër Firawna ñu gis kees gi andi ko ci kanamu Firawna te ci gàttal andil Firawna fauteuil bi mu to asiyatu ni tëll génn Firawna ni li lan la mu ni ko kees mu ni ko lu ci nekk mu ni ko xawma ko ubbil Firawna ni Haaruna ubbil kees gi ma xool waaye yàlla nee na bi ñuy ubbi kees gi ci laa defal bayre muusee wa alxeytu aleyka mahabbatan mi nii mu ubbi ko rek asietu gis ko rek ni xurratu aynin lii walaka laa taqtulu xasee an yanfaana aw nattaxisahu walada firawna daal di dummóoyu ni ko xanaa yow lay jariñ waaye du man dandi haaruna uqtul reel kii haaruna ni das jaasi ji ni gees xool ko yëngal cheveu bi ah jigéen ñi ku ñu xool ba biiñ la yëngal seen cheveux yooyu bani la yow looy tiitalu yow looy tiitaru nii daal ni xaaru na eh. Aseetu ah, ne eh Haarun mu ne waaw mu ne ko fii du sa palaas yamal sa place ni firaaw na looy rap rap yow firaaw ni ni tekk mu ne ko xale bu ndaw bi yëla jal di rap rap yow li nga yor nguur doyu la yow yaay kan te jigéen ñi kun ñi yow yaay kan nga déglu leen ku ni yaay kan nga siggi xool leen âgé ni ko nañ ko jël def ko doom amuñu doom waaru na ni tekk te bari na lu kilifay def dunguru yaa bari na kër kilifa gu tas ñay sibooroo ko tas ñay dunguroo ko tas ñoo fa wax lu ko tas bari na lu kilifa def ña ko wër a ko def loo waaye du moom muusa asiyatoo ko muccal moo tax jigéen bari na lu mu def ci kër yéen a ko yor de waaw musuma dégg nu tudd am na ci jigéen ñi koy way naan góor ñee ko yor la wax wala jigéen ñee ko yor ah. ndeke yéen mënu leen a way kese ñarañ faatu géwél a ko wax ne jigéen ñee ko yor xale yee ko wax ndeke yéen ñëpp ngeen di déglu ne jigéen ñi yéen a ko yor waaw <laughs> yéen a moo tax ku ci amagul wujju yàlla boo ko am ci yéen ah, ah, ah. du ngeen wax amin yàlla na ngeen am wujju ko ndax la daloon ndaw sa dal leen sëñ xam nga lu daloon ndaw sa daa nekk ci marché bi jaay yor ay nenam sëñ Moussa gàdduy nenam di jaay benn waay bu sob dajeeg moom ni ko waa yow looy def ci marché bi mu ne ko damay jaay mu ne ko xanaa yëgoo li xew mu ne ko déedéet mu ne ko ah sa jëkkër ji doon ji may jabar dem mu ne ah loolu sama yoon man ma yor samay nen di jaay daal di continuer nenam ndaw sa dem muy wër kum dajeel ni la ay wa wu ñor ay wa wujju ñor ay wa wujju ñor fàtte ni ay nen la yor léegi wujj lay jëf ni moom lay jaay moo tax koo ci waxal mu ni wujjudu yàlla ba ba nga ko ajee ci yàlla nga ko ragaloon kon nag yàlla na nu yàlla boole dimbali yaakaar naa ni guddi gi màggat na waaye màggat na màggatu jàmm guddi gi nag kenn rekk ko moom muy rasulullah ñoo ngi jaale sëñ haadi oustaz Alioune Diop ngeen koy jaale bu baax yéen ñëpp di ko jaale waa Malicounda di ko jaale alhaj Demba Fay mi président daayira bi di ko jaale alhaji Moustapha Sarr sa Saalin Diop ku baax la woon ku bëggoon islaam la macha allah ku daa dund lislaam la macha allah man ku ma bëggoon la su ma gisee daan ma alaaji bu saaxo loolu rek la may wax ndeysaan saa yoo ma gisee te loolu ci cofeel la bokk te loolu sempulul ndax mawtul aalimi mawtul aalami waaw dañu wax ni benn borom xam bu génn àdduna monde bu tukki la àdduna bu tukki la kon loolu sempulul ñu ngi leen koy jaale yàlla na ko yàlla wàcce àjjana ci barke yonent bi di ñaanal itam yàlla na fa dajeeg ñin fi daan bokkal di nekk ku ci mel ni Serigne Mbay Mbaay tabaarakallaahu daana toog fii di tagg yonent bi sallallahu alayhi dëkkoon Tiwaawan doom Maodo ñaama la ku ci mel ni mi nu boole woon ci dëkk bii fa tabaarakallaahu ñoom ñëpp yal na yàlla wàcce leen àjjana noonu rek lañ koy defee wa naasu xallan yalummuhum wa xalla ma yabqa ala lisil xala borom ibnu Durayd nee na nee nit ñi ni leen dee tiime mi ngi mel ni ni jur gi tiime ñax mi déggu leen ma de ma ni nit ñi ni leen dee tiime borom ibnu Durayd nee na mi ngi mel ni ni jur gi tiime ñax mi balaa bàyyi rek ñax mi daa jeex dee balaa bàyyi danoo jeex tàkk benn benn lañuy ñuy roppat moo tax dafa am benn nitu yàlla yàlla def ko mayoon saa yu nekkee ci dëkk bi malakul mawti suy ñëw day jaar ci moom nuyu ko mu ni ko foo jëm mu ni ko kër diw mu ni ko maa ngi lay ñaan bis boo may rey nag ma tàggu mu ni ko d'accord saa yoo may rey tàggu ma mu ni ko d'accord saa yu ñëwee ci dëkk bi balaa dem kër gi mu jëm day jaar ci moom nuyu ko mu ne ko foo jëm mu ne ko kër diw day jekki-jekki tuuti rek yaa sayda dégg yuuxu ya ñu ne li xew ñu ni diwa faatu ba benn bis rek mu ni cëpp ñëw sëñ Moustapha mu ni ko foo jëm mu ni ko sa kër mu ni ko ci kan mu ni ko ci yow mu ni ko noon naa la nang ma tàggu sooy ñëw ci man mu ni ko tàggu naa la yaa ma déggul mu ni ko kañ nga ma tàggu mu ni ko ñëwuma fi bis sàngam waxtu sàngam nga ni ma foo jëm man la kër diw ma ñëwaat fi bis sàngam nga ma foo jëm man la kër diw ma ñëwaat fi sàngam jaar boobu ma fi doon jaar di dem këri nit xamoon nga ni bés dara ñëw ci yow lay ñëw moo tax bëri na kuy teewe ñuy sang ngay seetaan ñuy sang ngay seetaan ñuy jullee ngay seetaan ñu jagat di yóbbu ca biir bàmmeel ya ngay seetaan ñu dugal ci biir suul nga dellu si ci kër gi ni kaay waar ma déggoo ni ñi ngi lay waar déggoo moo tax wax naa ko bërki démb ci benn gàmm dama ni dëj kenn ci waaraate ku ciy waaraate xamoo li xew dëj nekk ak nit oustaz Alioune Diop daan toog fii xëy suba mënatul boppam dara ñu déglu nodd gi oustaz Alioune Diop daan toog fii xëy ñu rocc ruuxam mu ni bëndëng ñu jël sang ba mu set sang yeew ba mu dëgër ñu sakk pax yépp teg ci jaat jàppoo ñëw jullee gas ba mu xóot fa ñuy sotti medd ñu dugal ko ca biir suul nga ñëw dellu si naan kaay leen waar ma doo waaru yonent bi ñaari waar rek fi nekk bii wax ak bi wax bii wax dal na leen bi wax dal na leen maa ngi ñëw samaam ni araka nasital mawt wal mawtu mawridun falil kulli min bahril mamaati nasib aha yow nga naan yéen waar ma moo tax dañ ciy fàttali kenn du ci waaraat moo tax baalalul misra bi ko waa keer ne dañoo bëgg nga waar nu defal nu conférence def ni leen bu kenn wut seize bu kenn wut bâche ñu ne ko nu ñuy def mu ne daje leen rek ci benn place xaar ma ma ñëw ñu daje xaar ko mu ñëw boolal yëg si alaaj Moustapha ni topp leen ma ñu topp ko ba ca armeel ya mu joxoñ dëkk ba ni kër yële ku ko tabax ñu tudd seeni tur mu ne bàmmeel yi ku ci tëdd ñu tudd seeni tur mu ne haadi xusurukum wa haadi xuburukum seen sato yaa nge seen bàmmeel yaa ngee seen sato yaa ngale waaye seen bàmmeel yaa ngale mu mel ni dee nag boo ci wax nit ñi dañu naan ku ne bàyyeeku <laughs> euh, moo tax sama benn xarit sëñ sëñ bi ci laay duggee ci gàmm gi daf ma nett lu doy waar dañu ànd ci dañu ànd ci benn gàmm ca gànjool muy waxtaan rek ñëpp yi nelaw ba yàgg benn waay ñëw ni ko diw gàmmul waay mu ni ko kon ba ma tàmbalee ba de gàmmoogoo mu ni ko non gàmmoogoo gàmmul dafa mel ni nag man tamit gàmmooguma de ilmun wa sabrun xayaaun majlisul karimi wa rafu sawti fii xumi yëguloo ni samaam Seydil Xaaji Malick baayu Serigne Babacar Sy allahu akbar xilmun wa sabrun hayaun wal amanatu majlisul karimi wa rafu sawti fi humi cheikh alhaaji malik nee na boo ñëwee ci jataayu yonent yàlla muhammad garam place am ñeenti jikko nga fay fekk ma wax ko de xam nga garam place xew na sëñ haadi garam place bu yonent yàlla muhammad di toog sabaan nee na boo fa ñëwee ñeenti jikkoo nga fay fekk ñu ne ko ban ak ban ak ban mu ne xilmun lewet lewet xam nga yombul lewet waaye waxuma ñàkk fayda de dañoo nuroo ñoom ñaar lewet ñu ne ko ak lan mu ne sabru muñ ku ne di muñal sa moroom ñu ne ko ak lan mu ne xayaa un kersa kenn du siggi xool sa moroom ñu ne ko ak lan mu ne amaanatu kenn du fa summi say dàll wala nga teg fa sa portable sa xel di xel ñaar jàkk yu bari ci senegal foo dugg di julli boo bàyyee say dàll biti daanaka doo am julli ndax xalaat say dàll alaaji mal ni wal amaanatu ñu ne ko fan mu ne majlisul karimi mooy jataayu ku tedd ka di rasulillahi waaye la ca yéeme mu ni wa rafu sawti yëkkati sa kàddu di wax ak sa moroom yëkkati sa kàddu ba mel ni kuy xoloo xom yi tere nañ ko fii ci jataay bu rasulillahi toog jataay bu yonti yàlla muhammad toog kenn du fa yëkkati sa kàddu waaye di waxtaan mel ni kuy xuloo ñu naan xoolal ma ñee lu ñuy def loolu amul ci jataay bu sayduna muhammad di bokk i'lam fa'lam wa'lam i'lam annahu rasulu rabbil alamin waaye xanaa ñi bëgg yonent bi nekkuñ ci place bi i'lam annahu rasulu rabbil alamin defe naa fukki minute lay waxtaanaat ndax xaaj Moustapha man ñoo conclure jataay bi i'lam fa'lam wa'lam i'lam anna rasulu rabbul alamin ndax guddi gi màggat na fa tabaarakallaahu yàlla nañ ko fekke waat déwén i'lam anna rasulu rabbul alamin e alaaji Moustapha Sarr yëguloo ni ki ñu tàntal tànt bi mooy sayyiduna Muhammad i'lam anna rasulu rabbul alamin Serigne Hadi déggal nee na ki ñu tàntal tant bi taalal ko lamp yi mooy baram barrière leer ba sayiduna muhammad alam anna rasulu rabbul alamin nee na koo kii may waaj a joobe mooy rasulu rabbil alamin mooy ndaw borom mindee fi yàllaa ko yónni moom rasulillahi nee na képp koo xam ni ku la xool sopp la rasulillahi sa sang وسير جميع الأنبياء والمرسلين نانا موي سانغو كيب كو يالا يوني موي جميع الأنبياء والمرسلين يوننتي بي سين سانغ هو الذي أرسل كافة إلى الخلق أجمعين إيه كو بغي يوننتي بي ديفال ني نيو ماغال بروم باريرو لير هو الذي كان نبيا وآدم بين الماء والتين ماني كو ديف ني ماغال يوننتي بي يالا nga fekke dewen كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين dellul ginnaaw bul jàll damay firi bayit yooyu ngay jàll رؤوف بالمؤمنين شفيع بالمذنبين ورسول إلى كافة الخلق أجمعين والذي يرسل كافة إلى الخلق أجمعين mooy ki nga xam ni moom la yàlla yónni ci mboolem mbindeef yi كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين yàlla waxee ci téeréem bu tedd ba alxuraan. maa kaana muhammadin aba ahadin min rijaalikum. nee na muhammad du bàyyu kenn ci seen góor ñi. walaakin. Eh, eh, kooku ndawal yàlla la. walaakin. ee eh, kooku moom muhammad. nabiyallah. yàlla kooku rasulillah yi. mooy soppeeb yàlla ba. walaakin. ni'mal la eh, mooy jàmm yàlla walakin eh, kooku mooy caabi yàlla moom Muhammad. walaakin ee eh, kooku. xaru aqiyaay. ee eh, moom la yàlla ko ci mboolem ñi yàlla bind. walaakin ee eh, yàlla lii. ee moom la yàlla jël tampon ba dóor ko ca pàllaxi càmmooñ ee bu yàlla dajalee awwalina ak benn dege fa nekk bu ñuy naan rasulillahi ko moom. wa maqaamil mahmud. eh benn place dafa nekk bu gaa yi yéeg kenn fay yéeg muy Seydouna Muhammad eh benn benn drapeau fa nekk benn parapluie Muhammad lañ koy jox. bu yàlla dajalee awwalina ak axirina kenn rek mooy sañ a taxaw ñaan boroomam mu may ko muy Seydina Muhammad imaamun eh mooy njiit la asimiyu la eh ndaw la moom Muhammad nee na xuraysi yu la bokk nee na ku ñu soloo la màkk la dëkk moom Muhammad nee na Madina la génne àddina nee na jëmmam ja alawi la ibrahimi booy seet askanoon ibrahima ay maamam booy seet fu mu dëkke moom Muhammad pàkk ba mooy Ijaas nee na Adama ku jur moom Muhammad nee na ku yàlla bind nit ak jinne rasulillahi seen sang e ku bëgg yonent bi defal lii ñu màggal borom barrière ba e sëñ haadi mouhamad gàttul woon ba di ndugur waaye njoolul ba di séttëx e eh, njoolul woon ba mel ni moom moom mouhamad e nee boo ko xoolee dafa weex nee waaye weex ba dafa jaxasoo ak ay tomb yu xonq nee na yéen yi dafa gudd moom mouhamad nee na tenq ya dafa nooy napp mel ni wëttéel nee na tenq ya dafa guddoon moom Muhammad nee na moom Muhammad dafa digguddoo mu gàttul ba ni ndugur njoolul ba ni settax eh moom rasulillahi gàttul ba ni ndugur waaye njoolul ba ni settax sallallahu alayhi wa sallam

e ñi bëgg yonent bi xanaa nekkuñu fi la mujizatun ajaza kull wara Moustapha yëguloo ni bu ñuy tagg yonent bi ngay def nii doo amee loxo buy métti ajaza bu ñuy tagg yonent bi ngay def nii doo amee loxo buy métti ma ni bu ñuy tagg rasulillahi ngay def nii doo amee loxo buy métti bu ñuy tagg yonent bi ngay def nii sa loxo doo ñàkk dépense. eh téere yi nee nañu bu ñuy tagg yonent bi ngay def nii sa loxo ma ngay dal ca bunti àjjana eh njol makka ngay dem yàlla ko invité moom Muhammad sëñ Adi yàlla invité rasulillahi invitation boo xam ni yàlla mosu ko invité kenn ba su àdduna sosoo du yonent du malaaka du jinne du kenn yàlla mosu ko invité boo boole koog Jibril Asrafil Azrail Mikail. eh kenn ku nekk ànd ak soixante dix mille malaayika ñuy gunge rasulilah. sëñ Hadi Ndiol Makka ngay dem Jibril la ko escorté Mikail Asrafil Azrail. eh Ndiol Makka ngay dem ñu ngay gunge rasulilah. njool makka ngay dem njool makka ngay dem. yow na ci zamzam ñu wàccee ko ko xaaral ñu jox la po nga naan yow Muhammad ñu door a continuer. Serigne Hadi yëguloo ni téere yi nee na ñu ñaari boisson la ñu jox yonent Yàlla Muhammad. eh benn ba nee na ñu meew la benn ba sàngara. Eh, Mbàkke ni cas meew ma daal di naan ba ca digg ba mu wàccee Jibril ni ko boo jëloon sàngara sa xeet wépp ay dem sabara e eh yow Muhammad bi nga naanee meew mi boo ko yëkkale woon ñëppay dem àjjana. njool màkk ne ko jottali ma ma àggale ko mu ne ko déedéet jafatil aqlaamu. moo tax Serigne Hadi Baadoo la rek la ñuy jox kaas mu naan ko ba mu jeex. wala ñu jox la kaas nga naan ba mu jeex nga ni dolli ma alaaji Moustapha nooy nee isa saribtum fas aru njol màkke ne buñ leen xelilee di naan desal leen waaye ñu jox la kaas nga ni ko secc naan ni dolli ma baadoo laa tax victoire de Madinatul Munawwara Jibril ni ko visiteel pàkk bi yow Muhammad fii ngay ñëw mu wër Madinatul Munawwara gis lépp vert am digg boo xam ni saxul dara mu ne Jibril lu tax Madina yëpp vert am digg boo xam ni saxul dara jibril ni ko fii wert yëpp yaa ko moom yow Muhammad waaye fii lañ lay suul mooy sa bàmmeel yow rasulillah nee ko yàllaa fi fixé bëtu yërmandeem ndax yow moo tax fii saxul ñax njool Makka départ dem baytul muqaddas moom Muhammad ca peelu yàlla dajale malaaka yi ak yonent yëpp ñu daje ci benn place. mikaayil liqaam. eh mikaayil moo liqaamal rasulillahi. njool màkk jiite leen ñaari rakka. ñu laaj borom xam-xam yi yar ñaari rakkaala. mu ni mooy ñaari rakkaay fajar. moo tax njor màkk ni rakkaatay fajiri xayrun min ad-dunya wa ma fiha. njor màkk jiite leen ñaari rakka. ñaari rakka yi jeex wa taqaddamta li salaati fa sallu. Eh, kulluhum muqtadin wa anta al-imam. njor màkk parce que jóg ma ngay dugg ca asamaan ya laka mujizatun awjabatul wara benn ñaar ñett ñeent juróom juróom benn juróom ñaar laka mujizatun awjabatul wara muy sidratil muntaha jibril ni ko ma minna ila no maqamun ma'lum awjabatul wara ni ku ñëw ci kër jàmbur da nga war a nuyoo awjabatul wara ni ko nu muy nuyoo mu sako baate mu naan attahiyatu lillahi معجزات أعجبت كل الورى نقول يبقى التحيات لله التحيات لله الزكيات لله الزكيات لله طيبات الصلوات لله طيبات الصلوات لله eh ñool màkk ni tekk yàlla ni ko ku nuyoo ñu fay la asalaamu aleyka asalaamu aleyka ayuha nabiyu wa rahmatullahi wa barakatuhu malaaka yaa nga ca suuf naan asalaamu aleyna عباد الله الصالحين بدر أشهد أن لا إله إلا الله يا رسول الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بدر نجم jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf. Samiil Aliim من شر شيطان رجيم اللعين بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب السلام عليكم ورحمة الله mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkeel di leen jaajëfal di ñaan yàlla nañ yàlla may teewaat déwén mu mel ni e, alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah mbir commencement la am ak jeexit te nag lépp nag ci loxo yàlla la nekk yàlla nañ ko yàlla defal xitaamuhu misk loolu mooy mbir mi ndax li li ëmb jataay bi mënuñu ko wax waaye bi taqsiir ma tafsil rek day doon waaw dañ koy tënk ci ijaaz mooy bi ñu ubbee si alxaaji haadi ñu ngi koy ndokkeel ndax guddi gi guddeem la guddi gi la moom lañu ñu si moom la ñu si dafa xel rek ba ku nekk war a jël kàddu waaye ñëpp mën ñoo jël kàddu ndax benn ay chauffeur bu ñu àndee il faut kenn conduire waaye eh, fa jazaahu llahu xayran wa ayadahu wa nasarahu bi jaayi sayyidil wujudi sallallahu alayhi wa sallam eh, mu mel ni li mu wax ci waajal rek koor gi la ñaan nañ ko màng ci yiw eh, ndax loo xam ni du yow rek yow lañ ko farataal waaye amoon na umam yu la jiitu woon ñu farataal ko ci ñoom waaye nga doon dundu daaw ba say morom am ñu ko fekkewul yow nga fekkee ko kon alayka an tantahisa bi hadihi l fursa ndax fursa tayiba la fursa la boo xam ni ku nekk rek yàlla moom liy béram mooy jël fob defalte fob defal defab nag fa sabiqul xayraat mooy compétition la ku nekk yaay compétir sa bopp kon yàlla nañ ci yàlla dugal ci jàmm mu waxit yaa saydaa jaar ci sabru ndax doomu aadama daanaka waxtaan wi ñu def yëpp ci tànt bi dafa am euh, euh, euh, rab dafa rabba kasante muy fi ñu commencé ci weer yi sëy moor ñëw ci xilaas dugg ci sabru waxtaan bi lépp ba ci ñàkk ngor bi mu doon wax ci sëñ baabakar ak ñàkk doylu ak gaawa a fàtte sa bopp sax wala ñàkk kóolute ak yëpp ma ngi ci biir te dara waralu ko mooy doomu aadama yi li sama papa di wax naan nit ñi gëm nañu yàlla waaye wóoluwuñu yàlla ndax nit ki ñëpp gëm yàlla waaye wóolu yàlla moo des te war nañu wóolu yàlla nag ki la wax te li mu wax. ba tey ma ngi koy def dindeegu ci dara war ngaa xam ni li mu la wax dana ko def kon jar nañu wóolu ko ñu am mu wa antum muuqinuuna waaw dafa war a am nit ñu war a bàyyi xel waaye li waral ihmaal gi muy sàggante gi ak ifraat gi du dara lu dul ñàkk jàng ndax nit ki bu fekkee ni am li mu yor xamu ko nan la koy joxe solo il faut ñu delluwaat ci njàng waaye jàng dellu ci njàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa in tutiuhu tahtadu il faut ñu bàyyi ko xel wax nañu àdduna bi li ko yàq fiñ ñu mooy internet mooy whatsapp te xale yi ñor yaa ngi ci whatsapp ñoradi yaa ngi ci whatsapp toll nañ nit ñi te matuñu nit xale yi dañoo toll ni nit ñi te matuñu nit. daanaka ay ay ay poussin lañu rek yu ñuy jox aliment ñuy lekk toll ni ñëpp waaye matuñu ni nit ñi il faut nag nag ñuy wax ak ñoom waaye boo ne njabatu njabootu kinaara xutuura bi day ñëw foofu da wa kullukum kullukum raain wa kullu raain masulun an raayati te nit jur doom nag nit déng ci sa biir kër ni manuma ci dara wallahi ëllëg di nga ni wétt ci safara te kenn du fa li jële da waqifuhum innahum na nit war na ci bàyyi xel doom dañ koy jur di ci sonn waaye bañ la ko jox fatra salima lañ la ko jox waaye jox la doom nga def ci benn bàyyeeku ji doo ko wax sax gëmoo ci sax yàlla ah des na des na yàlla bu mu am nag dara walla suut dootoo ko wax dëgg kooku du dëgg doom mënta ëpp bàyyi doom mënta ëpp yaay dañuy wax nit ñi dëgg kon nañu gën a bàyyi xel ci loolu rawatina nag am am yi xale yi fu nekk lañuy ñuy jëlee lu nekk la indi te duñ leen laaj foo leen ko jëlee ak noo leen ko amee ay sama taaw bu baax bi ñëwati na ah tey de danañu reer ak dana defar soppi cin ci lan la ko soppi ci lan la ko soppi serite bi bari na fu mu ko jële nañ ci bàyyiwaat xel yaa saydaa wax na ci lu bari liñ doon waxtaan yëpp day dugg rek ci raxma ndax innamal umamu axlaaquhum ma baqiyat wa inhum zahabu axlaaquhum zahabu te yonent bi wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin rahmatul muhdaat la rahmatul muhdaat la rahma la goo xam ni pour jubal la mais ñun su fekkee mënuñoo am ci yonent bi walakum fi rasulillah uswatun xasana axlaaqiyaat rek lañ fi waxtaan axlaaqiyaat yooyu dañ ciy dund man nañ cee liñ fi wax ku nekk mën na cee jël ba déwén te du jeexal sàq la moo xam ni ñëpp mën nañ cee jël seen xët te duñ ci jeexal kon nañ ci gën a bàyyi xel te yàlla nag wa rahmatu wa rahma wa rahmatullahi qad wasiat min fa وسعت بها للمهاجرين موابوطين suñu suñu maam Seydil Xaaji Malik dafa wax ni qad wasiat rahmatullahi min fajirin wa mutiin zahidin kaana am baarin bu mu ci mën a doon rek kon li am solo rek yàlla wa rahmatuhu wasiat kulla cheyin kon nañ bàyyi xel ni yàlla dana yërëm waaye nag na nga fexe def luñ lay yërëmale kan la ñuy repêché ku dese un point wala deux points ba ci cinq mën nañ ko repêché mais ko a deful lu ñuy repêché fu ñu lay repêché loolu mooy shafaa kon nañu gën a bàyyi xel ci la waa ji waxoon léegi la sëñ Fall waxoon euh, euh, fu ñu leen waaja waxoon ne sëñ foo leen fekk yóbbu ñu mu ni ko bu ñu la fekkee ci kaw yoon il faut ñu bàyyi xel ci yàlla jox ko cëram te jukko dafa am solo maam Mouhamadul Mansour dafa ni laynul janaabi wa quuran kaana za shafaqin ala al masakini wal aytaami tam tamhiidu kon li am solo mooy nit ki dafa war a bàyyi xel ci jukko yonent bi jukko dong lañ ko lañ ko lañ ko fonke wa innaka la ala xuluqin azim fawqa li mu fawqaa nit ñi yëpp wala li mu leen ëppee daraja yëpp du dara lu dul jukko kon nañ leen jéem a defaraat jukko yi yar nit ñi ci jóg mooy éthique et déontologie éthique et déontologie nañ ci yar nit ñi xamal leen ñooy kan xam yaw yaay kan nit ki balaa muy lu mu réere réere na xam mooy boppam waaye nit ñi xamatuñu seen bopp ku xamul boppam nag du xam keneen wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala sëñ maxtaar mel na ni yéen daal doyalagu leen waaye kenn doyalul wax naa ko léegi sëñ moor tabaarakallah sëñ Moustapha Euh, yow tëj nga waxtaan bi kaste nga ko te synthèse nga ko tënk nga ko kay macha allah jale ko ci alxuraan bu neex di fi dong bi doon jàng léegi Adama Ka jaar ci di fi soxna si jàng euh, jaxeer te ndeysaan ñoom ñaar ñoom ñu génn ci daara ji kii ngi génn ci daara ji ci ndakaaru kee ca faas wala ñu daleef ba wàcc fa ba bëgg a mokkal ñoom ñaar ñëpp loolu natiija la résultat la macha allah ñu ubbee ko jotaay bu mel nii Euh, damay wax Moustapha ñoom ma ni leen xam naa ne macha allah laaw la cat am na lu nekk ci bés bi waaw 24 heures yoodul yoodul yoodul yoodul dajjantu doo gëmmentu loolu macha allah loolu tabaarakallah euh, sëñ Mor sant nañ la bu baax la nga fi waxoon daaw jeeg ni am na joueur boo xam daa nekk ci biir stade bi di football lu bari ndekete daa am ku ne ci kaw waaye xam naa ni soxna si dee ko indaale rek ndax nii nga defee tey jii macha allah macha allah soxna si del ñëw rek sëñ Mor ku baax la sëñ moor ñoo gàmm gi comme ni mu ko waxee benn édition moo ko ci raw benn te booba mooy bi ñu njëkk a njëkk a def euh, ma ànd ko ak euh, mag yi Moustapha Thiam ni booba lii Moustapha yore coordinateur ak kii nu mu tuddati chronogramme bi ak programme bi bàcc Thiam moo ko daan ndeysaan bu ñëwee dee taxaw amoon lool himma ndeysaan ko amoon rigueur ndeysaan ñu def ko benn yoon ca déwén sa mënuma mën daal sëñ bi dëkk naa koo xam ne bugg naa nga xamante moom mu ñëw ci gaam gi man kooku mu la mu ne ko ñu ni mu ma ne xilaas man ko waaye indi ko wax kiyal ma ko indil ma ko mu inviteel ma ko at mu ñaareel ma ca kenn du téye kenn du gis nag lu baax di ko bàyyi ca la ñu téye Mor rek moom it ndeysaan mu téye ñu mu muy colère goo xam ni yàlla na gën a yàgg yàlla na gën a yàgg ak xaritoo juddoo ci lu ne juddoo ci loo xam ne macha allah gaa moom ngi muy amal Kébémer at mu nekk Iran Iran Iran oustaz di ko ko defal di ko di fa waxtaan yàgg nañu ko yégal léegi-léegi ñu teew ci léegi-léegi ñu am yéene lool waaye lu mu xat-xat moom Moustapha ak Demba dama leen di wax yéen dem leen buñ ma ñëwee fekk leen fa baax na waaye yéen jiitu leen ñu rek waaye loolu lépp rek waaye loolu waaw war kay wallaay waaw waaw waaw waaw waaw waaw. xam nañ ko. àndandoo mag ak ndaw. waaw waaw waaw waaw. waaw waaw. kaamil yi fa allah. daaw. Mhm. dañ ma defal loo mhm. kii bi. Mhm. Euh, Maxtaar sànq ba léegi ñu ngi leen di wax taxawaay te gunge bi ba léegi rafet na waxtaan wi macha allah. jàngi satisfait wu nañ lool jërë leen jëf Ibrahima Mbeng li mu fi dama leen di wax ni ñoom xasida boobu moom moom la ñuy gësamee moom eh, atawakkau alayha wa ahushu biha ala gan waliya fiha ñoom ay maarib lañ ci am waaye macha allah loolu ñëpp xaj nañ ci ñëpp xaj nañ ci macha allah dama leen di wax toogub tànt ba génn fa te dégg fa way sëñ Hady yii mënuma koo gis mësuma ko gis kenn moo tax léegi ñëpp mokkal nañ ko waaye laa jërë leen jëf ndax faaw rek moom ma ngi koy fekk ba mu tëdd li ngeen di way nii ma ngi koy fekk ba mu tëdd moom mu ciy jël wàllam yal yàlla sàmm baat yi yal na yàlla sàmm kàddu yi yal na yàlla sàmm leen yaa sayda bégati nañ lool yaa sayda li mu pare xam naa ne bind ko ok ni mu tudd li mu bind incha allah xam naa comme ni mu ko waxee soxna yi nag moom dama leen mënatula wax dara ndax xam naa ne li ñu boole bu buñ ko doon man moom tàkkusaan li ñu ñëw yaa daa defal leen benn spécial waaye waxtu woowa ku romb waañ yi ñu ne nga xam ni am na leneen luñ tal waaye xam naa ñàkkul rek nu su koy organiser ba nga xam ne incha allahu dana gën a mën a daal nu mu tuddati man moom fab naa ko taay ba sama waxtaanu bopp euh, taay naa sax di ko bind ndax da nga koy bind ba pare moo tax damay ubbi rek jox leen macha allah te jiitaloon nañ ca kër nu mu tuddati mareem ca kaamil ba waxtaan woo xam ne defe naa ñu bari jële woon nañ ci lu baree bare bari moo tax ñu doyloo woon loolu ubbi leen macha allah euh, mbokk yi fi teew ñi fi jaar dem ñëpp gis nañ ko gàmm gi alaa daw mi na nan meloon daaw daq na rek dàq na ko te incha allah de na ko dàq ñu leen di dénk incha allah comme ni ko soxna yi defee keroog Moustapha bi ñu defee bi daf maa paas ay jigéen ñu bari soxna yi ni ma ñun pare woon nañ bu yàgg ba gàmm nga pare te suba lañ commencé woon di di di di waajaat waaye ku gis ndeysaan seen seen seen seen colka yi ak seen maye yi nga xam ne yàgg nañoo pare waaw waaw wallaay ñoom safaana nag ku gis seen baax bi xam ni macha allah préparation bi xat na waaye rafet na organisation bi rafet na laaw la ca macha allah waaye nag du ma fàtte di leen di wax ngeen ñaanal ko ñu wax seen Sène Mamadou seen ñaanal leen ko bu baax Amagat Sène déedéet astaghfirullah Mamadou Sène laa wax jàpp na ci gàmm gi ci façon bu spécial ci nag woo xam ne da koo joxe loolu dañ koy wax ngir ngeen xam ko ñaanal ko ñi koy ñi dégg loolu roy ko ci loolu ak ñeneen ñu def lu mel ni moom waaye dañ ko si cité rek mu doon koo xam ne ñu des ñëpp dégg ko ñu leen di gën a déggaat li ma leen doon wax ci gën a bennoo gën a jàppoo bu ko defee doole ji gën a bari incha allah yàlla may ñu fekk waat ko yeneen yoon saawan saana ñu ngi koy ñu ngi koy ndotteel ñu ngi koy nuyu wala la ku daaw da koo tardé woon waaye at moo xamee ni ñu ngi fi rek day ñëw bokk ñun ba mu jeex ak mbokk yi fi jaar ñëpp ñoom oustaz euh, nu mu tuddati kii Faye Ousmane Faye ak mboolem ñu fi jaar ñëpp ñu ngi leen di ñu ngi leen di sant di leen ñaanal Souleymane Faye Souleymane ñu ngi koy sant Souleymane Sarr moom it ci organisation yi macha allah jàmbaar la ci lool góor gi macha allah ma ñu ma góor gi ma njëy ñu ngi lay ñu ngi lay massaw ñu ngi lay massaw bu baax waaw ñu ngi lay massaw boobu ba léegi mag la waaye day toog bokkoom ñun waaye ñu ngi lay ñaan daal saa yoo xamee ne sa wér may na ko rek nga ñëw defal ñu lii ba mu gën a yàgg bu ko màggataale mukk bu ko màggataale mukk ndax macha allah Moustapha Diop ñu ngi koy san di ko beral cantam Moustapha Diop moom li muy def moom moom moom moom moom yàlla xam na ko ñun xam nañ ko at mu nekk nag ay ay wëllëre yoo xam ñoom la dëkkal yu baree baree bari at mu ne dina leen ko yëgal eh, lañ koy jox sànq li ma indil te at mu ne ko mu def ko kat dina ëpp fanweeri enveloppe yoo xam ne du ma ko sax dajj mosuma cee dajj benn waaye damay woo Moustapha saar ba mu ñëw ma ne ko lii xaj na ci guddi gi nañ ko ci def ëpp na fanweeri enveloppe xaw ma lu te ne yàlla xam na ko waaye xaj na ci guddi gi te loolu ñu ngi la koy sante te Moustapha di la ñaanal na nga xam ne ñoo lañ ko jox yàlla gis na ko te ñu ne gis nañ ko euh, xam naa la maam Abdou Massa wax rek bis ay daayira waa ñëw di am lu muy wut si maam Abdou ni ko dara nekk fi xanaa nga toog mu toog tuuti ab daayira ñëw indi xaalis enveloppe bi fees lool del mu jox ka maam Abdou xaw ma xaw ma daayira sax xaw ma waaju amala rek <laughs> maam Abdou yëkkati enveloppe ba jox ko ka doon xaar waa ji ni ko ah sëñ bi li ma ca mën ko yàlla gis yàlla xam na ko yàlla gis na ko waaye daajiwu ko waaye loolu mooy def lu baax te doo xool nu mu mel nu mu toll loolu lañ leen di loolu lañ leen di ñun daal ñu ngi sant yàlla bu baax dégg nañu kontaan nañu sant nañu ñëpp ku ñu jaar ci kuram ak ku ñu ci jaarul sant nañ leen sant gi tegaat nañ ko ci loxo Demba Faye mu teg ko ci loxo mu Moustapha saar mu àggaleel ñu ko ci ñëpp ñoom Ablaye ñu ngi seen nañ leen taxawaay yi rafet na ñoom su lay boo limee sax da ngay aadi seen bàyyi ma kenn boo limee sax da ngay soxna yi moo xam kër moo xam maliku ndëg yi moo xam nduuréen taxawaay yi rafet na bernde yi mat na macha allah yàlla na gën a yomb yàlla na gën a yokk ànd ak wér kenn bañ a manqué bi ba déwén a jàmm wa axiru daawana an alhamdulilahi rabbil alamin audu billahi min alshaytani irrajim bismillahi arrahmani irrahim allahuma inna aslamna ilayka anfusana bi haqqi ismika alazami almaktumi nasaluka altawfiqa walsihata walafiyata wa husna alxitami maa albaraka ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واعف عنا يا كريم وعافنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن يا ذا الفضل والإحسان اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واستر عوراتنا وتولنا بالحسنى wa zayyinna bi taqwa wajma' lana khayra al akhirati wal ula wa sallallahu ala sayyidina muhammadin al fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasri al haqq bil haqq wal hadi ila siratika al mustaqim wa ala alihi haqq qadri haqq qadri haqq qadri haqq qadri wa miqdari al azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun wa salamun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ba déwén ak jàmm insha allah مولانا إلهي يا إلهي يا إلهي